Euh, li tax li ñu ñu ñu sumb tey waxtaan wi moo di danoo jël euh, jëlan ay ak danoo defan ay activité ànd ko ak bàjjenu gox yi fukki bàjjenu gox ak juróom ci dëkk bi waaye fu ñu dem nag am na dañ faa def dañ fa samp cellule yoo xam ne cellule ADE lañ ko tuddee ay nit ñoo xamante nii dañuy représenter ADE ca gox ba ñu ne ba bu bu fa mbir amee jëm ci xale yi ñooñu buñ ci jéemee ba mu të buñ ñu wooyee noonu taxaw ci li tax ñu taxaw pour aar xale yi mooy dañu gis ni euh, jamono yi ñu toll jamono yu njëkk ya euh, kenn ku ne kenn ku ne pour sa doom defe lu dul noonu boo dajee keneen boo dajee benn mag mën na koo duma walbatiku te coow du jëpp léegi nag doom sama doom la doom kenn ku nekk sa doom la koo laal doomam mu porte plant mbaa mu euh, yóbbu la police mbaa mu yóbbu la gendarmerie léegi nag moo tax xale yi fir fir googu xale fir nag te bari lool jàngatuñu ñu ngi ci mbedd mi loolu ne ñu ngi koy def ba ci koñ looloo tax nu nu jóg depuis quatre vingt di yëngu ci lii nga xam te ne mooy daalal xale yi aaral xale yi teg leen ci yoon woo xam te ni yoonu jub la ba ñu euh, euh, réer tey jii mooy évaluation bi nga xam ne nii moom lañ ñu woowaat di ci waxtaan ak ñun ci mbirum violence bi nga xam ne nii dëkk bi yàqu na bëgg ñu jël xale yi taf leen suñu bopp di waxtaan ak xale yi jigéen yi di waxtaan ak ndaw yi di surveiller suñu doom yi suñu doom yi ñu fexe ñu ñeme ñu parce que xale bu la ñemee ñul rek du wax ak yow su la ñemee ñul bu génnee nit dina ko def loo xam ne bu duggee du ko nettali. donc ñu jël suñu doom yi taf leen suñu bopp di waxtaan ak ñoom di dem ci quartier yi ñoom li ñu mbébét pour ñu wàcc ci gox-goxaat yi di waxtaan ak xale yi nga xam ne nii ñoo nekk ci gox-goxaat yi di waxtaan ak ñoom di leen conscientiser di leen delloosi waxtaan ak ñoom ba nga xam ne nii yu bari yoo xam ne xale yaa ngi ci doon dugg ñu génn ci di waxtaan ak euh, yaay yi nga xam ne ñoo ne ci kër yi ñu wàcc seen bopp uuf xale yi téye xale yi bañ a leen stigmatiser parce que xale yu bari dañ leen stigmatiser boo leen stigmatiser ñu génn ci mbedd mi donc yaay yi ñoo jur xale yi